waaw tey waa waa kër soxna Aysatu eh, soxna maam Issa maanaam axlu kafe gis nga leen ñoo fi ñëw nii di indi kafe fii ci bërëb bi waaw nga xamante ni daanaka si ndigal soxna asgaan la ko doon defee moom la koy defee sax te mu téeñ ko ci ba café gi yegg ba bitim réew fépp gis ngeen mbokki taalibe yi fi teew ñoom sëñ daam café ak mbokki taalibe yëpp ñoom daam gaawaa nag ñoom sëñ Abib ak ñëpp rek waaw sëñ sa turandoo moom nag moom moo sasa wala jërëjëfe sëñ Bamba bi jaamam sa ndax loolu si café gi kat ni mu mel mel na ni soxna si noonu ak bëggam la de waaw ak bëggam la lool waaw man moo man moo tax wax naa seen jaam ni ko maanaam damaa rus dégg ñu ne jëfe jërëjëfe sëñ Bamba te teg ma si jaamam si fa <laughs> kon nag café gi jóge ci ah, maam soxna si yàlla na ngeen dem yéen yii ñëpp ba di ko yóbbu Amérique waaw maanaam maanaam maanaam baatu Amérique yooyu ñoruñ si waaye liggéey suñu taal moo war a yegg fu ne waaw te ci ñun ñëpp waaw barke borom kon nag ñu ngi sant ñëpp lu gërëm yëpp kon ni ma ko waxee rek bërëbu soxna saa ngi nii bërëbu soxna saa ngi nii soxna Aysatu Gaan moo nekk fii ak ay mbokkam ak i magam soxna Faati Mbàkke taaw Sëriñ ak soxna Asu Ndeen ñu siyaar baa ñu fi nekk yëpp sëñ Daam Arxuraan eh, sëñ Abdoulaye Sarr ñu koy siyaare bu baax siyaare ñëpp rek di wax wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu tey nag ñu ngi ci altine ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci rakki gàmm waaye di fukki fan ak ñett ci weeru novembre deux mille vingt yàlla nañ ko fekk waa déwén. gaa yi bëgg nañ ci yéen bu baax de sëñ daam waaw nuyu leen soxna si bu baax nag waaw sëñ Seydina Habib bëgg ci bëgg na ci yéen bu baax